mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ni yéen a ngi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ziar yi nag dañ ciy jiital Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké xalifa xaadim rasul di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba lim yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Xaadim yëpp mu def ko ànd ko ak mboolem jullit yi ak taalibe yi waaye di beeral ziar Serigne Ahmadul Muxtaar Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha jamono yi ñu toll ci weeru muharam xel yëpp day daal di dem ci xew-xew bu am solo boo xam ne nii ñu ngi koy dëgmal muy màggal gu njëkk gi di màggal gi nga xam ne nii ci lañuy ñuy fàttalikoo bis bi sëriñ Touba Cheikhul Khadim tànnan dëkkaale si ak boromam fii ci dëkkam bu tedd bi di Touba di ñaar fukki fan ci weeru Muharram euh, te ñu bare bëri gën koo xamee ci màggaluk Cheikh Modou Moustapha wala màggal Daaru Xuddoos li ko waral nag mooy ni neen ko waxee léegi sëriñ bi bi mu tàmmee dëkkaale boobu wala bi mu ko tànnee mbooleem dénkaane ak la ca aju Cheikh Mouhamadul Moustapha la ko wax mu defee ko nam ko bëggee loolu moo tax ñi ëpp ci askan wi di ko ko askanele waaye xam ne ren jii niñ koy waajalee daan ko ko waajal at mu jot ren jii nag ñu ànd ak waa diwaanul muridina di kuréel gi nga xam ne nii moo lëkkale yeneen kuréel yi nga xam ne dañoo aju ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir waajtaay ak dundal bis boobu ren ji nag ñu ànd ak ñoom ci ay waxtaan yu am solo ànd ak woroomi xam-xam yi nekk biir Daaru Xuddoos waaye ànd ak seex si nga xam ne nii dañoo aju ci kër euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye ànd ak ñëpp ñi nga xam ne nii rek bu leen tuddee xel yëpp day dem ci Daarul Xuddoos loolu nag moo waral tey jii ñu ñëw kër Serigne Khadim géey Serigne Khadim Gueye nag dootuñu ko présenté kenn rawatina waa Daarul Xuddoos ndax tey jii bu ñuy lim jàngkat yi gën a ràññeeku ci Daarul Xuddoos moom buñ ko ci jiitalu itam ñi ko ci jiitu du bëri ginnaaw bu mag ñi jàllee moom lañ ñëw tey jii nag fekk ko këram euh, ak yeneen mbokki jàngkat yi ko ci mel ni Serigne Mara sëriñ Serigne Mam Mor Kayre ak yeneen mbokki taalibe yi nga xam ne xam naa sëñ Xaadim dina dikk ci seeni i tur incha allah rabbi fas yéene waxtaan ak moom ci ñaari tomb yi am solo wax nañ ko léegi muy euh, sëriñ Xaadim Gueye jànkatu Daaru Xuddoos li indi loolu ak li ko waral incha allah danañ ci waxtaan beneen tomb bi nag waajtaayu màggal gi mu mel ni sëriñ Xaadim am na bis bu am solo bu mu ciy taxawal bu ne ëllëg la màggal gi ngir bañ a guddal rek dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo ñu door a euh, tàbbi nag ci laaj yi kon sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu euh, nga nuyoonte ak mbokk yi nga xam ne ni ñu ngi seetaan jamono yi ahousubillahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di ndokkeel eh, di leen jaajëfal bu baax ci ñëw gi ngeen fi ñëw ak jataay bii am eh, di nuyoo ko siyaare Cheikh Mouhamadul Mountakha mii fi nekkal tey sëriñ Touba sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Touba lépp mu defee ko ni mu ko bëggee te nu ànd koog moom. di ñaanal itam Serigne Ahmadul Muxtaar mii fi nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha sunu borom yàggal ko ci kanamu njaboot gi mooy ba mu yàggale naal yi ak ay yéeneem yëpp. te ànd koog mboolem njaboot gi ñaanal itam Serigne mustapha Mbacke mohammed mi nga xam ni tey jii mooy sunu bunt ci sëñ Touba yàlla yàggal ko fi te wéral ko ak ay rakam yëpp di siyaare mboolem mbokki taalibe yëpp siyaare mboolem julli ñu fuñ mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax. jërëjëf Serigne Khadim Gueye ci nuyoo yu matela yooyu niñ ko waxee ci njàlbeen rek. jataay bi ñu ciy ziar particulièrement Serigne Mamor Kayre ndax képp koo xam ne ni yaa ngi seetaan jataayu jëkk yi keroog bu ñuy eh, def waxtaan ci seexi Serigne Modou Moustapha yi bi ñu ci Serigne Mor moom moo leen fa teewalan ba jataay bi yaatu na lool di fàttali mbokki jullit itam jataay yi ñu ngi koy am wala ñu ngi koy def di ci ànd ak waa diwaanul dina waaye di ko tasaare ci ay site yu internet yu yu fasantikoo yu toll ci fukk ak juróom ak ay rajo ak ay réseau yoo xamante ni ñu ngi Touba lépp nag ngir waajal bis bu màgg boobu nga xam ne ni bisub jullit yépp la kon sëñ xaadim ginnaaw nuyoo yi niñ ko waxee ci ak njàlbeen rek buñ nee sëriñ xaadim ngay jànkatu xasida sëriñ xaadim ngay moom daaru xuddos sëriñ xaadim ngay moom sëriñ mbàkke soxna a xam loolu wala buñ bëggoon mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñu ngi seetaan euh, xam lan moo waral tur wala sa diggante ak sëriñ mbàkke soxna loo nga ñu ci mën a nettali ak jëmm ju tedd jooju lan nga fàttali ko ci moom lan nga ñuy baaxee sëñ bi de moom ginaaw bi nga xamé ni moy sama buntu ci Seigne Touba ma jox sama bop dafa taxawé ci man taxaway yu bari ñu yu sëriñ ak talibem di taxaw ci man yu bay ak dom taxaw taxaway ci man nit ak ku ko bëgg ndax mom ku fonkon ku ko bëgg la lolu taxna bi ma yàlla dogalee liggéey bi ma di ko tàmbali li ëppoon ci ay tànkam boobu fii lay ne ci tuubaa boobu sax mën naa wax ni ñibbeegul Taïf ndax sëñ bi 89 90 wala 89 la dem Taïf ñibbi fa boobu samay tànk ngi bari ci moom may def su ma demee fii ci kër gi ci tuubaa di jàng ci mbaar mi ci suuf waaye dafa def ko bëggoon sikkar ma jange bay ki mu yónni kenn ci magi talibé ni ko nekku na ma di ko lu yag day taxaw ci kaw ci balcon bi ci kaw di doxantu di deglu waye fuma baye rek nga gis mu fay lampi, yi ci kaw waccat ci ginaaw fim dan tok euh ba bis mu woluma laaj ma luma soxla dal fekk booba euh, radio yi ñaan daan manana ay radio la sonique la ay mañet fan yu mag yo, xamni day am écho ma ne ko moom laa bëgg mu ne ma lu muy jar ma ko fukki jooni ak juroom benn daan may jox ñaar fukki junni ma demal jënd ko euh, teewul sa bu fi nekké rek ma defa dem fa dem di ko di ko ba nga dal ni ma bëggoon sama digënté ak mom an mo mu ma bu baaxa baax xamni ni bu ma ko mu xamni man la ba ay jamono bi mu diglee wilaaya bi ma ànd ko ak taalibe yi ak ñim ko ñiñ ko digaloon ñëpp euh, nekk nag jàngkat bi jàngkatu waa wilaaya di leen jiite ay sikar bu ñu siyaare ji di ànd ak ñoom di répété di leen daajal ñu koy bokk di def bari na sikar yooyu dégg ci wilaaya yi man mi maa ko daaj ci kër yu bari yo xamni yu wuté la man mi mako ko ñu daan and ci lool ma nekk jankat bi nga xamni kër sëñ Abdou Fata mi rahimahullahu nañ fa daje di fa daje daje yu mel non ay guddii aljuma di jang kër sëñ bi non lepp lu xew ci kër gi lu mëna doon ma di ko ay jamono mouvement yi ñu daan organiser nga xam dañ daan def ay set setal ci quartier yi ci gox yi buñ ko defé ba ngon damay may wa daire bi am gont ñu def ko lepp lu ci joge ci am-am ñu wat ko ci bir kess gi ma takkook ñom rek ba bi señ bi di dem Dakar 1990 stade kérok biñu ñu man mi ma jang foog na jox señ Ablaye sek mu yeggale yoy yëpp don ay dox na ci sama diggante ak sëriñ bi ba 1992 ci la ma njëkk a wax ni ma ndax mas ngaa génn réew mi ma ni ko déedéet fekkoon bis bu ñu daan defal sëñ Cheikh Mbacke ca Paris mu santaane woon ni nañ toppatoo samay kayit ngir ma dem ci euh, bis boobu jëfandikoo na ci noo xam ni ni mu toll rek la defee ndax bi ma laajee sax fekkul ma am carte waaye ñi wax ni nañ ma utal carte d'identité ci bis bi lañ ma utal carte d'identité utal ma passeport ci bis bi lépp ci benn bis mu ni nañ ma utal visa ci passeport bi ginnaaw bi mu bàyyi wutal ma passeport de service nga xam ne ci la voyage euh, maag moom sax bi ñuy dem ànduñu waaye dafa am ku ma booleen ku tudd alaaji ma silla silla moom la ma booleeloon ni naa ànd ak moom mu yóbbu ma xam loolu bariwul jànkat buy dem tukki ñu yóbbu la xam naa laa moom maa mission mu yóbbu ma bi bi mu dal ci lañ ma dalal <clears throat> nañ ma fa utal ñu dalal ma nga xam ni loolu jox nit maanaa gëdd ak jox ko fi nga fi nga toll keroog foofu la loolu mën a yem te ma gone laa foofu lañ ma dalal nga xam ni li li nekkoon ci ay toppatoom sax maanaa ci ay ataayaak di defar yam soxla ma fa gënoon a doon gone ma ko gëna man xamni dama boole won sax buma ma nek ci wetam diko top toppatoo lim bëgg euh ba keroog ma ngi fàttaliku bi fay joggé di dem turki dara bi solon ci hôtel bi man mi lañ ko jox man man la ko jox nga xamni dama ëpp baat ba dama ëpp mu gudd ci man waye ma barkeeloo ko rek euh, yoy nak mu boole maag nag mbooloo ma foofu yëpp ne leen na ngeen ko taxaw ta jappaliku ndax bi moy première sortie ñu ko japp gaat naa ñetti at gennuma yo xamni moko taggo ko rek ni ko damaa bëgg tukki day teen rek ni ma baax ne dégg ko ma dem ba ñëweetuma mako wax dara bayyi rek non ndakate bobu xamna ci tekkaaral googu mi ngi li mi ngi travailler dal sama sama sama bir dal te bobu la gëj Italie bobu la gëj France bama ma defi kaseetu mam jaratullah bobu ànd ak asiru yàlla dogal mu tasaaroo lool maanaam am kii lool daal siiw lool tasaaroo ba 2000 ma dem fa di ko siyaare ji comme ni ma daan def rek mu daan may xool ni ma may gis ngaa tukki ma ne ko lool mbaki man kay juróom-ñetti at a ngi nii génn moom mu ne ma nga ni lan mel ni ko xamul dara rek ma ne ko waaw ah kon de woon ngaa tukki daal di yëkkati téléphone am comme nam defoon woo am ko mu woo wax ak moom. ñu ko danaa wax xaadim bu subaa nga ñëw fi nga utal ko passeport de service te boo passeport de service boo ko amee mën ngaa dem France sans visa mën ngaa dem Italie sans visa maanaam man ngaa génn dal te doo am visa kooku ne ma bu subaa da nga ñëw ma jóge Taïf ñëw fii fajaroo fii dem Dakar dem ca kooku fekk sax mu dem sport ma toog di ko xaar mu ñëw ma jox ko kayit yi ca suba sa ma dellu siwaat fekk lépp pare <laughs> nga xam ne moom ni mu ko soobee rek ni mu ko bëggee rek ba ma demaatee nag mom nak mom fa la mbir ma gëné doy war nak ma demaat nag fekk mana ak namel am na fa digënté juroom ñett adi ñang mi gën fi progresser nga gën ko jaku ak yu bare bare xam nga lo lo lo lu xew rek te te te ñëpp bëgg ko ma ma ñëw nag yoonu italy woowa yoon wu ni mes wu ni mel mustafa am daanaka ci ci neex ci nit ñi dolli seen ciofel ci yow ak yu bare bare yoo xam ni waxtu wu ne am na ci boo xam ne bi may jàng 31 décembre foofu ci Italie sëñ bee wooteel boppam ci téléphone bi maanaam moo woote téléphone ñu def ko ñu teg ko ci rajo yi mbooloo mépp di dégg am na ay rajo yu tuddoon Walsipes xaw ma Walsipes te mu am antenne yu guddi yi ci la sëñ bi doon dégloo njàng mi Italie nga xam ne gars yi dañ koo defoon direct ci rajo bi sëñ bi di ko dégloo Taïf daal di yëkkati téléphone am woote keroog jili ñag mii nekk tefeem keroog dafa daanu ñu teg ñu teg wax waxam ñu teg waxam ci rajo yi ñëpp di ko dégg nga xam ni dañoo bàyyi njàng mi arrêté ku saal bi ni teg sëñ bi sëñ bi di wax ay kàddoom voilà jëmale ci man daal loolu yooyu xam nga lu rëy rëy la waaw ak moom ni mu toll waaw kon nag moom nu nekk wanee na ma ko moom moom wane na ma nu nekk ci ak mujjam nag moo gën a doy waar moom nga xam ni li tax mu gën a doy waar mooy ñim daan baaxoo toogal ñu ci bari seere lañ ci di wax ay wax ci man wax ni man daal xaadim mooy sama jàngkat waaw te des na tuuti ci kanam dangeen xam ni mooy sama jàngkat ñu am luñ ko doon wax mu wax ni yéen ñii yore xasaay di da ngeen a war a xam seen bopp ndax liggey bi ngeen yore ndëndum buur la kenn duko teugal ba baadoo la daa ne ma kuko xamut jaru jafal ak kuko meuna juru a ak ko meuna a doon keroog loolu la teg da ne ma comme ay international ngeen loolu la wax da ngeen wara fexé ba rew mi xam yéen yene ñan ngir rew mi xam yene ñan nak da ngeen koy jaar fi jaar fep moy da ngeen fexé reconnaître leen ngeen am ay kayit ci rew mi lu ñuy defal ku nekk ci rew mi di jariñ rew mi ñu ko defal ndax bu ñu xamoon yéen li ngeen di tekk ci réew mi danañ leen jox cër bu rëy waaw yàlla nañ ko yàlla fayal moom moom mun maa wax ci moom lu bëree bari ndax lu ma wax dinaa am lu ma bàyyi te man na ma wax ci moom ba suba. Euh, noonu ñu ko bëggee woon yaakaar naa tontu yi mën na sëkk muy sa diggante ak ki nga xam ne moo di Serigne Mbacke Mohamed te ñu gën koo xam ci wala ñu gën a siiw ci Serigne Mbacke Soxna Lo moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma moom Cheikh Modou Moustapha moom Xaadim Rasoul loolu rek na sëkk misaal. yaakaar naa ni nga ko waxee diggante bi yàgg na te defarug sëriñ bi mooy defarug Cheikhul Khadim rek kon ñaan rek fan wi gudd euh, lépp nag mën nañ ne bokk na ci li nga xam ne nii xëy na mooy sabab bi wala fa la départ ba muy njàngum xasida mi ndax xasida leen la ci sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim ndax wax nga ko jamono yi nga xam ne nii da nga doon dem ca kër ngir bëgg mu ràññee la yaakaar naa bokk na ci li nga xam ne nii mu nga ko doon dégtal mu dee njàng ak ak ak zikrulaa kon lépp foofa la déparé waaye nag alhamdulilah euh, dañuy wéyal rek ci beneen laaj bi euh, daal di tënk jataay bi muy ñuy waajal bis bu am solo bis bu am wàccuwaay ci taarixu murit rawatina Serigne Touba Cheikhul Khadim ni ñu ko waxe woon muy bis bi nga xam ne nii li mu làmboo ci ay njëriñ bëri na li ci sëriñ bi dël bëri na li ci Cheikh Mouhamadul Moustapha wax itam bëri na euh, bis boobu nag buy ñëw at mu jot yi na koy waajal di ci taxawal yi na koy waajal ci jàng alxuraan xasida rawatina bis bu mag bu nga xam yeen nii koy def fi ci seen kër ndax mën nañu xam bis bobu sabab ba lako waral ak loñu mëna bax itam ci bis bi nga xamni ne nii moom la mu nekk suñ kanam. bis bi mom bisum ñaan la bo xamni ni tambalé yag na ran ji la ci 26e édition bi maa ngi ko tambalon 92 fi ci biir kër gi diko def ñaanu beccëk di ci fatali ko ko ñaanal sama waajuru góor muy serigne Ahmadou Guèye moom nag liggéey bi may wax nii ci sëriñ bi daf cee sonnoon lool ay njabootam yu góor ak yu jigéen man mii la ci tànn tuddee ma sëñ Touba ginnaaw bi ma xamloo ba noppi xaside yi da ko ko daan bind ci àlluwa di ko tari bind la ma ko ba tàyyi ma jàng ko tari ko su ma noppee bu may raxas allo bu ma koy raxas dama koy dékk ma noppee naan ko am na ku ma ko doon waxal bu yàggul naan ko li ma naan ci daa bu fekkoon dina wàññi kenn dara ma xam ne daa dina ma rey ndax saa bu ma raxasee rek dama koy dékk naan ko waaye bu naafix bokkoon na ci li ëppoon li ma daan jàngaloo su ko daan jàng day teglalu campagne bi tëdd ci am na signe yum daan def bu ko defee mu tàmbali bu dee Fuma yëkëti bu ko mata ma takrar ñaar yoon bay di wala dara ba amna bis may ma way ba exi ci lahum tidahi bahda da manam manam batu bahda najahi da munuma wax sama lamiñ dam ma ma jaxasoo mu may wax bahda najahi ma diko wax mutama tama mënatuma ko wax nga xana naa mujj ni ceel xaw ma woon lu sabab lol waye ba fi may wax yow fuma jangé ba exi ci lahum tidahi bahda da lu ma lu njàng mi xat-xat sama xel dem ci moom waaw nga xam ni fu ma jàngee ba sam ba ba yegg foofu sama xel dem ci lool lu doy waar la laax la ma lay wax nii léegi nag bi may dem bay mën a jàng ñaari nit wala ñetti nit di ma déglu fekk ko fi fekk na mu faatu moom 87 la nelaw bi jëkk mooy tuddee gi ma tuddee sëñ Touba tax na su ma ko doon sant ba yowmal xiyaamati mun ma koo fay bi ci des mooy xasida yi ni mu sonne woon ci ngir ma di ko jàng xaw ma woon luy sabab si te bi ma koy def bañ may déglu fekk ko fi te doom desee lul waajuram lu dul mu jiitu ko mu di ko ñaana mu wutal ko bis di ko di ko ci fàttaliku ak waaye juróom yu baax ya ko jiitu boo seen boole ñoom ñëpp di ko ci ñaanal di ci fàttaliku waale ñooñee ci ci barkeem ndax moom sëñ maalik mi ko jur euh, doom la ci Cheikh Adama Guèye euh, doom la ci Cheikh baabu ñun ay waa Mbaabu lañ boo déggee ñu Mbaabu gii Cheikh Cheikh Mbaabu wala ñun waa lañ waaye moom ca teel la ko sëñ Touba joxoon Cheikh Moustapha moom sëñ Malick mu nekk moom sant ko fu Cheikh Moustapha mos a jëm ñoo ànd. loolu ñu dugal daaru xudus sëñ ilimaan jiñ ko daan wax sëñ Mourou Moussa da ko daan nodduloo ci su fi sëñ Mourou Moussa nekkul mooy jiite bu fi nekkee nag sëñ Mourou Moussa jiite sëñ Mourou Moussa waxtu yëpp waxtu yu juróom moo ko daan jiiteel boppam waaye bu fi nekkul sëñ Malick moom moo daan jiite moo tax ñu da ko wax sëñ ilimaan moom nañ tuddee sëñ ilimaan mii sama mag gi baatub ilimaan ji looloo ko indi bis bi nag 92 laa ko tàmbali ba ren ji di ko def ko ci fatale ko ak ñaanal ak waajuram yi ya ko jitu yeb ak bokk yi nga mu doon bis bo xamni euh fi ci kër gi la tambalé di dem ba xajatu ci kër gi ñu génne ko ci mbedd mi walam jankat boy dégg ci Sénégal ñi ci ëpp bok nañ fi dajé di ma ci jappalé mu koy fanané def ba asaman set ren jii ni mi ngi dëppook aljuma ji di ñëw rek jël 28 mu doon bis bo xamni itam Budul won ñaan gi ma ci def lim fi dajale ci jankat ci dekk bi ak lim fi dajale ci sunu mbokk yi di ahlu khasida rek jaron na di def jaron na di len dajale ñu bokk dajje gisante rek safonte rek jaron na def ko waxuma laak nak lim ëmb ci njariñ ba ci daw jang nañ ci juni kamil ak juroom ñaar téeméer ak lu tegal amna ci mbokk mo xani at mu jot dina ci jang million salatu ala nabi Eh, eh, bii weesu sax jàng na million ak téeméeri junni salaatu na bi liñ ciy jàng ci li mu xasida xamuñu nu mu toll ginnaaw buñ ko defee addi sëñ Tuubaa ba noppi ñëpp xaj nañ ci la sëñ Abdul Ahad waxoon ni eh, loo bëgg sëñ Tuubaa nangu ko loo bëgg yàlla nangu ko def ko àddi sëñ Tuubaa waaye saa buñ ko noppee rek addi sëñ Tuubaa lañ lañ koy def fasaaleel ci taalibeem yooyee nga xam ne ñoom lañ ci ñaanal loolu moo sabab bis bis daal bisum ñaan la boo xam ne sama waajuru góor laa koy defal sama wajuru jigen nak mi ngi fi ñaan yalla may ko wér ak gudd fan euh, ñaanal itam sunu wajuru gor wi fi nek di rakam di sëñ makhtar Gueye nga xamni tay ji mo fi mo fi dess ci sunuy wajur ñaanal ko yalla yagal ko fi mom itam te wéral ko sam ko te ar ko ndax taxaw na njabot gi bu baax a baax a baax <laughs> waaw waaw xam nga li mom bi ngeen ñëwee fi ngeen ko fekk té euh, sa su nek ni lay démé waaw muy sëñ Mara sek mi wet liggéey bi may wax doon na ci dara sëñ bàcc mi sëñ Mamor Kayre sëñ naa mi ak sëñ Modou Kara ak sëñ Ousmane Diouf mi ñëwagul sama liggéey bi ñoom laa ko àndal du ma wax ni ñoom laa ko daan àndal waaye ñoom laa ko àndal ànd googu ñu ko ànd moo sabab jataay bi nga xam ne da ngeen fee ñëw daje feek ñoom ñu ne fi am lu ñu war a waxtaanee euh, muy ànd bu yàgg boo xam ni li may wax sëñ Mara mii fi gën a yàgg seere la ci si liggéey bi ak ñim demee taxawaay bi nga xam ni liggéey bi dox na ko ba yegg si fii te ab ànd bu rombee ñaar fukki at bay dugg fanweer dëgg la te sëñ Touba rekk a tax mu boole ñu sunu ànd bi xamuñu lu tax nu ànd tey jii nii ma leen limee nii kenn ku ci bokk ak sant moroomam amut xool ko bu baax kenn ku ci bokk ak moroomam sant amut waaye li nu dajale fii ne dajalewul sax ñi bokk ndey ak baay ci ci ci ci pas-pas ci soppante ci wóolante ci bëggante ci jàppante ngir yàlla ak sëñ Touba mi nga xam ne moo nu boolee liggéeyam bi nu bokk ko te mënuñu koo seddoo xam ne ku ci ne li muy yëg ci morom moom bokk laa du la mën a wax lan la te lépp ak cofeel rek la kon nag mm, ñoom ñii liggéey bii nga xam ne ñu ko ànd ba tey jii fépp fooy dégg ab jànkat ci senegal ñoom ñii ña nga fa guddi yi ngay dégg senegal ñoom ñii ñoo koy fanaane te ñoom ñii man la leen yàlla booleel ci xasida yi ñu koy ànd kon seere la ci lii ma doon wax seen jataay bi seere la ci ñu sant leen bu baax ñoom itam ñaanal leen yàlla yàlla guddal seeni fan wéral leen sàmm leen te aar leen ba li ñu yéene liggéeyal sëñ Touba lépp ku ci ne mu defee ko ni mu ko bëggee barke borom Touba. mu mel ne buñ ñu dikkaatee ci sabab bi rek doy na sëkk sabab ndax ki nga xam ne nii yàlla dogal na mu nekk sa waajur. yar la fam la war a yara jàngal la fam la war a jàng fa fam fa nga war a jànge xirtal eh, ba pare xiir la nag ci li nga xam ne moo di xasidaay Serigne Touba yi ba pare tudde la Serigne Touba yaakaar naa ne cant gi jéem la rek waaye doo ko man kon yàlla na ko Serigne suñ borom gën di la kattanal bu baax a baax ak mbokki jànkat yi ni nga ko waxee ba lépp loo ci def rek ak loo yéene def ak lépp lu ci mbokkum bi def rek Serigne boroom jotale ko ci yool bi jotale ko ci mboolem ñi nga xam ne nii ay jullit ay mbokki jullit lan lépp nag tabbiwaat ci àddiyaay sëñ Tuubaa ndax lépp lu jullit def rawatina rek la cay gën a wóor wala lay sécurité ba rek mu tabbal ko ci àddiyaay sëñ Tuubaa boobaa moom lu ñu leerte wóor na mooy day day nangu kon yàlla na suñ borom yàggal jëf ji comme ni nga ko waxee itam ci ànd bi nga xam ne ni yéen ko ànd ak mbokki jànkat yi firnde la ci ab tegtal la am njàngal la ci mbooleem ñi nga xam ne nii dañuy ànd rawatina njàngkatu xasida ndax dañoo seq loo xam ne nii kenn amu ko ku dul ñun muy muy Serigne Touba khadim Rasul mu wat len nak ci ab tool muy khassidam yi kon yaakaar ne bu ngeen andul rek <laughs> dañuy jaaxal kon alhamdullilah bu ngeen àndee yalla Serigne Touba gën leena ar gën leena sécuriser gën leena a boole euh, xam ne liñ amon ci waxtu jombul ne mu ngi bëgg a dañuy daldi di mbokki taalib yi nga xamne ñu ngi doon sétane den xamal ne rek ñu ngi tay ba ci waccayu li nga xamne ni modi di euh, muharram muharam di magaluk. Euh, Serigne Touba Xaadim Rasul ñu koy amale fii ci Daarul Xuddoos waajtaay wi nag ñu ànd ci ak waa diwaanul Mouridine ci niñ ko waxee ci njaal benn di kuréel gi lëkkale mbooleem kuréel yi aju ci biir Daarul Xuddoos te di dundal bis boobu noonu du ñu doon wër kër ñi nga xam ne nii euh, ay seexi Daarul Xuddoos lan ak seq ay waxtaan ak woroomi xam-xam yi aju ci Daarul Xuddoos waaye seq ay waxtaan itam ak jàngkat yi nga xam ne nii dañoo nekk ci Daarul Xuddoos buñ ci jëlee sëñ Xaadim ngay rek doy na ci sëkk ñu koy jaajëfal itam ci disponibilité bi alhamdulilah ñu fekk ko ci ay xat dilen leen balu ak di leen balu ak di jox dox daje inshallah rabbi benen jotaay ak wajtaayu magal gi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ولا أدنى الآفاق من نور مستوى كلا أم خم خم تأم دين فون كنغر رجل يلا تجمار جدول دوف مستوى يا أمدا في سائر بعد باطن عنايته قبل الولاية مستوى كلي مبكي وكوكي لغاندام ذكر ليم ندر كاني كان كان باكوليرام فمستوى لو وسربو جاغاني فينغ تدو تداي sëriñ bi di barul nur leen fa mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate mustawa